بسم الله الرحمن الرحيم لا أقدم بيوم القيامة ولا أقدم بنصر اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عصامة بلى قادرين على أن يصفي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يفعل أيان يوم القيامة فإذا بلق البدر وقذف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وطن إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معذيرا لا تحرك به لسانك لتعجلب إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ بادرة تظن أن يفعل كلا إذا بلغت الطراق وقيل مراق وظن أن له فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم صاب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سرا ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن هي الموتى صدق الله العظيم فلا بد أن يتعاونون هذه الأولاد لأن هذه الأولاد أبناؤنا xaala laahu taala xaala laahu subhanahu wa taala fa amma man axtaa wa taqaa wa saddaqa bil husna fa sannu yassiruhu lil yusra yàlla daa wax ne ee yéen doomu aadama yi na ngeen ragal yàlla te ngeen jël te ngeen jël seen alal joxe ko ci yoonu yàlla te ngeen dëggal na àllaaxira lu am la moo tax xale yii ñun de dañoo jóg taxaw teem ngir jàppale leen ndaxte seeni wayjur da leen a sori amuñu fi seeni ju nekku fi seeni baay nekku fi ñun ñu taxaw temm pour jàppale leen ndax ñun ñii xam nañ li xale yi di jànkoon jànkonteel ku jegewut xale yi rek xamoo li xale yi di jànkonteel moo tax tey jii ma taxaw man nee naa leen fii école bi man de may seen avocat maa maa leen di waxal man ndax man damay jël xale yi toog ci seen wet kenn ku ne mën na ñëw leen kaay leen toog ma laaj leen yow lan moo la tax a jóge sa daara yow nangam nangam kenn ku ne joytuma sa bopp. kenn ku ne jooytuma sa bopp ne ma man kat lii sama sëriñ lii wala sama lii lii sama lii sama lii sama lii ah man day mënuma waaye danaa wax. mënuma waaye danaa wax xale yii am na ci ñoo xam ne li ñuy jànkonteel metti na metti na torop torop torop torop te lii ah kenn ku ne war nga ci dugal sa loxo way jur ku ne war nga ci dugal sa loxo ñu jàppale xale yi te yàlla rek tax te yàlla rek tax ndax lii ah daara lañ wax de man day jàng naa daara jàng naa daara de bala maa damaa jëkk ci daara soo ko dem école arabe waaye ñun lañu xamoon ci daara àllarba lañ daan joxe ñun àllarba léegi nag bu jamono soppeekoo ba léegi xale yi dañ leen di wax andi lii andi ñaar téeméer andi ñetti téeméer andi deux xale yi kon yow yow mii sëriñ bi sas jox nga teg nga xale bi loo xam ne yow yaa ko dem ne ko demal ca biti boo amul lii boo ñëwee fii xam nga lim fii fekk am na ñu bari ñu daw ci xale yi ñu ngi nii lolo ren ñoo ñoo lolo tax ñu daw lolo mo tax ñu dawee seeni daara di taxawal ci mbedd ah ba nit ñi di leen jël di leen indi fi empire gi wala ñoom ñu dawal seen bokk ñewal fi seen bokk ndax buñu démé daara xam nañ la leen fa sëriñ ba di xaaré ndax mëno jëf sa sa sa sa sa taalu bi ne ko dama dama dama indil ma ñent téeméer wala indi ma ñet téeméer xalé bi xeyna suba ba ngoon xamoo ci lu mu xey xamoo ci lu mu yendu xaw ma ci dara maara day taal mën na génn dara fér ko doo xam xale bi ci lan la yendu yow daal su ñëwee lan nga lan nga lijjanti ci moom na la jox versement loolu ngay lijjanti ci xale bi xale boobu nan la mën a jàngee am na ci ñu bari ñoo xam ne fii bu lu ñëwee boo leen joxee téere bi ne leen jàngal ñu ne fàtte nañ mënoon naa ko de waaye damaa fàtte ma ne ko lan moo tax ngeen fàtte ndax dañu ne yàgg ci mbedd mi ñaata weer nga def ci mbedd mi am na ñoo xam ne naan ñii ñetti weer kenn ku nekk daal ak ak heure ba nga génn rek ñii naan at ñii naan def naa juróom benn weer ah koo wax kenn ku nekk ak programme am kenn ku nekk ak programme am xale boo leen jegewul di leen laaj doo xam maanaam seen jàngoro doo seen tawat ah jëlee ñëwee jël xale xale bu jógee ba Pikine wala nga jógee ba ay ay yëmbal ay tëngéej ñëw ba biir Dakar xale bi kañ lay ñibbi bay jàng lu muy jàng du jàng dara mbaay boo bu dee jàngit ma ngay sóoraale sas ba ko sëriñ ba sas moom lay suuraale ci xelam njàng mi du ne ci moom ma ngay ma ngay calculer la muy yóbbul sëriñ ba kon nañ dimbale xale yi te yàlla rek tax sëriñ si nañu maanaam mënuma de damay wax rek waaye xam naa ne man samay wax sax euh, du tax sax euh, ñu ñu def loolu waaye dinaa wax war nañu organiser waat daara yi yalwaan fi lañ ko fekk daara ak yalwaan a ànd waaye loo gis dafa am heure bi xale bu bu yalwaanee ba 10 war na ñibbi siwaat ci daara ji toog jàng su jàngee ba une heure deux heures war na génn dem yalwaani añ ñëw añ ba suur julli jàng gontaat jàng ba 5 heures mu toog nopp mu julli noppaliku na nga daara yi ma xamal loolu la waaye man li ma gis léegi daal xamatuma ko daal li ma gis léegi si daara yi xama xamatuma yi ban ban daara la loolu nag tant que soppiwuñu ko taxawaal bi day bari lii du fi dañ de tant que organiser organiser waatuñu daara yi bu baax a baax a baax lii du fi jóg ku la dina ko fi génnee du ko fi génne daara yi ñoo ko mën a defaraat na ko sëriñ si defaraat organiser waat ko bu baax a baax a baax a ñu mën a tëye xale yi ji daara yi jàngal leen seen way juri dañ leen a wóolu jël xale yi teg ci seen i loxo ñii seen i yaakaar kon ñu jël xale yi di leen di leen jël di leen utiliser waaw waruñu jël xale di leen utiliser di leen wut wutloo xaalis suba ba ngoon xale bi xamoo fàq maan jël na ko xamoo xamoo ku muy taseel xamoo ci dara nga nga jël xale bi ah noonu fu ma loolu laa doon wax assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu man y allah dafa dogal sama kaddu jiituma ma am benen jotaayi buma war a dem bi ma amadou waxee ma fàtte ko jox ko dat bi man maa ko ko jox jëkkoon naa ko jox ab dat yéen ngeen amoon problème ñu changé ko indi woon ko tey bi ñu ko indee tey nag man maa fàtte woon ni dama ci sama kaddu daf ma ci jiitu après ma woo ko fekk boobu carte yi pare na ma ne ko waaye mbir mi du kenn rek moo ko man Chérif Maami dina ñëw ñoo waroon a ànd mais day ñëw toog fii man ma demal ko foofu oustaz Abdoulahi Gaye mii ñëpp xam nañ ko 2STV muy sama mag di sama kilifa nit duy yónni kilifaam mënoon naa yónni xaali wala sama rakk waaye boo waree def benn mbir nga am empêchement yabal sa mag loolu day wane mbir mi importance bi nga ko jox parce que tey bu doon ni ci garaade la moom moo ma gën a garaade man dama jël sama chef ma yónni ko fa tabaarakallaahu ci xam-xam ci mag ci lépp looloo waral ma yabal ko woo Chérif ni ko comme maa wa doon ànd te man yàlla dogal na suñu kàddu jiitu woon ñu te nga di ma teew fële doonte mënoon nga ko def bu sama mag ñëwee ànd ak yow dina fatt turu bi mm-hmm. loolu nag amul sax turu li ko waral mooy fonk lii xale mm-hmm. li ngeen di liggéey moom la lislaam bëgg mooy xale parce que xale bu ñu ko réussir rek àdduna bi lépp jag mais xale bu ñu ko fuusee bu ñu ko ratee adduna bi dara mënuñoo fexe ba bu baax macha allah loolu moo waral mbir mi ñu jël ko ci suñu xol def ko suñu mbiru bopp. bu fekkoon ne du yitte ak jamono man ak Chérif Mamine mii mën nañu bis bu jot ñu ñëw di jàngal sax xale yi ànd ak yaa saydaa bi waaye yitte ak jot moo tax. kon soxna Anta Mbaw mi nga xam ne fa ndaw moo leen yor li muy liggéey mboolem kuy yëngu ci wàllu nit. rawati ku yëngu ci wàllu lislaam bi nga xam ne ci lañu bokk da war a ne ci gannaawam jàppale ko kon fa tabarakallahu Amadou Seck Eurogerm bi nga xamante ni bu moo ñu fi indi bu àndee ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk di ak moom di liggéey indi ñu ci jaamu yàlla bi dañ ciy sawar dañ ciy kontaan waaye xale yi fa tabarakallahu dina am rek lu ñu ci wax ndax nit dinañu gis ñu toog yaa Seyda dafa am yu bari yu mu wax adressé ko daara yi te man dama yor daara yor naa téeméeri xale ak juróom benn 160 xale ma leen yor di leen jox ndékki añ reer bu ñu febaré ma sha allah kar ma leen di faj oustad Ablaye gay mi dafa yore daara lu mu gàtt gàtt xamna ni yor na téméri xale ma sha allah comme man xali gay me suñu rakk la dafa yore daara fa tabaarakallaa yor ay interna kon amna benn wax bo xamanteni bu ko waxé mom ya Seyda ñun ñoo ci dóor caché mais ya Seyda gis nga daara yi xale yi problème yi ñu am di daw. du sëriñu daara yi xam nga problème bi ñan la gouvernement bi ci boppam la parce que daara yi dafa am ay daara ak i daara ci jël ab kër gu pareegul mënul yor ay xale dajale xale yi di leen yalwaanloo ñu koy verse kooku mënul yor daara mais ñun ñu yor daara mënuñoo tëj benn daara amuñu sañ-sañu tëj daara kon état bi nga xam ne am na doole am na force moo war a jóg jël matuwaayam ñi nga xam ne dañuy tuddoo daara di utiliser xale yi di leen yalwaanloo ba bëccëg di duba xale yi di sonal xale yi état bi moo war a jóg tëj yooyu seet ñi nga xam ne ñu ngi koy teg ci yoon ñu leen di dimbali ndax daara mënul ñàkk ci réew mii di Sénégal daara mënu fee ñàkk yalwaan sax mën naa ñàkk nit mën naa yor daara te du yalwaan parce que yalwaan du force ci daara waxuma ni dafa araam man 93 ak tey maa ngi ak daara sama taalibe ma sul yalwaan oustaz Ablaye Gueye mii mën naa ko seede ma sul yalwaan xaali mi noonu ak ñeneeni daara yu ma xam kon yalwaan du force ci daara yalwaan dafa am lu taxoon ñu koy def bu ñu demee ba loolu taxoon ñuy def yalwaan bu ñu ko gisatul dañ ko war a dindi ku mën a yor daara nga yor daara état jàppale la fa tabaarakallaahu ku mënul yor daara état bi tëj sa daara xale bu ñu for ci mbedd mi muy dox benn heure bi bu ñu ko téyee yóbbu ko ba ci fa mu jóge dinañu xam responsable bi ko sant loolu su boobaa état bi bu ñu jëlee kooku tëj ci kaso bi trois mois 6 mois ñeneen ña koy def dinañu tëj seeni yos kon mbir mi yaa Seyda baal ma rek loolu fokk ñu leeral ko ndax wax ji day dem mbir mi du waa daara yi am na ñu fi yor ay daara ñu ngi yar xale yi ñu ngi jàngal xale yi xale yaa ngi yaru ñu ngi jàng ñu ngi mais dafa am ñu tuddoo daara yor ay yu pareegul def fa ay xale jàngaluñu leen yaruñu leen versement rek la ñu soxla te nag ñooñu nag daara lañ tudd mais nag ñun la a naqari ñun ñu yor daara waaye ñun mënuñ ci dara ndax mënuñoo tëj benn kon état mi ko mën a def moom mooy responsable bi na ko def loolu rek laa doon leeral foofu pour mën a dem ndax wax ji doon poussé santaat bu baax a baax soxna Anta ñaanal ko xamal ko ni lii muy def moom ak Amadou Seck mii lii leen ko yàlla fayee Sénégal bu kenn julliwul woon woorul kenn defalul yàlla dara yàlla fay leen lii ngeen di def ci xale yi yawmal qiyam ni leen sédd leen ku leen neex mën ngeen a sédd Sénégal ñëpp dem aljana fa tabaarakallaahu xale yi yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla defal réussite loolu rek man conférence uma Chérif Mami ak Oustaz Abdallah ñooy conférence Amadou defe naa li ma la waxoon ni la dinaa fi jaar soog a dem def naa ko loolu rek laa doon kii far ya Seyda xaw ñu laalaale ci affaire daara yi mu am ci loo xam fokkoon ma leeral ko loolu moo doon kàddu gi wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ziare di baalu xaq di bal ñëpp ak di jiital ci nuyoo nag suñu mbokk mi tabarakallahu di Chérif Mamine Haydara wàcce ko wàccuwaayu maamam qaddimu qurayshan wala tuqaddimuhu li ñu bëgg mooy waa quraysh nga jiital leen jox leen seen cër te loolu moo war suñu diggante ak moom dañu nangu ci làmmiñu Cheikh Al Hadj Abdoulaye si Dabaax mu ne xaw ma ñu ma seen shérif leerul de waaye moom mii mu ne bàyyam moom shérifam leerul te wax dëgg yàlla ku ko pratiquer xam ni sëtu yonent bi nekk loolu nag kàddu gu ma wax la bàyyi. ziyaare bu baax suñu mbokk Alxaaji Amadou Seck ak Soxna Anta ci liggéey bu rëy bii nga xamante ni moom la ñuy def wuutu ci jullit yépp la. ndax euh, éducation droit la boo xamante ni xale bu nekk daf ko am kon bu fekkente ni am ñu ko sàggane ba am ñu leen wuutu ci njaboot gi jël leen di leen yar ñooñu wuutu nañu ñu bëree baree bëri ci liggéey boobu ñuy def su fekkonte ni ñoom defuñu ko keneen defu ko ñun ñëpp bu ñu faatoo suñu borom dañ koy lijjanti ak ñun fardu kifaaya la faaw ñenn ci ñenn ñi taxaw ci yar njaboot gi mm-hmm. xale yi nag bi ñu judd ñoom ñëpp dañoo juddoo ak mbaax kon lu nekkaat ci ñoom lu ñu ci def la ba ñu yàqu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassaraanihi aw yumajjisaanihi mu ni ku juddu rek ak mbaax nga judduwaaleel léegi orientation bi ñu lay defal moo lay yóbbu ci leneen lu wute ak mbaax waaye mbaax nga dikkaale fitra doomu aadama

mais bu njëkk dañu daan boole yépp rek tuddee ko ministère de l' éducation nationale. maa ngi wax ci contrôle mag ñi nga xam ne xam nañu loolu ci réew li fi nekkoon mooy ministère de l' éducation moo daan ëmb lépp nag éducation si la yar nekk waaye si la jàngal xale bi nekk. léegi bi ñu leen séparé ba benn éducation benn enseignement li mu jur mooy science sans conscience moom la jural nit ñi fi mu toll. nit ñi am nañu xam-xam mais kenn conscientiser wu leen moo waral xale bi ñu jàngal ko ba war a nite mu xëy ak xam-xam bi ñu def ci moom yëpp problème am ci réew mi mu génn gis kaar bu taxaw fii nga xam ne argent du contribuable la ñun ñëpp dañu jël suñuy dërëm pour mën cee jënd ay kaar yu ndaw ci nekk bi mu xëy taal kaar boobu ñëpp di ko gis kooku même bu science nekkee ci moom conscience nekkul ci moom. nga dëkk de. science ne gëruñ de la baaxul ci réew nit ñoo xam ne dañ leen di jàngal rek te kenn bu def ci ñoom éducation yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni nit bu góorgóorloo ba yàlla may ko ñetti doom yu jigéen ci misaal mu yar leen nañu leen war a yare jàngal leen la ñu leen war a jàngal teg leen ci yoon ba xëy dénk leen di borom kër nee na na xam ne yoon na passeport àjjanaam ci poche am passeport bu am visa boo xam ne wóor na ko ne àjjana la jëm beneen bi mu ni wayjur defalul doom cadeau bu gën a rëy une bonne éducation wayjur amoo loo mën a defal sa doom ci àdduna ba loolu di ko jural njariñ lu dul yar ko yar bu baax tarbiya xasana la wax nee yar bu baax rek nga mën a def ci sa doom ba ëllëg loolu mën a doon lu koy jariñ fii jariñ ko fa nga jëm fañ jëm ni xale yi bu ñu leen yarul préparé wul leen toujours li ñuy naqari day am gis nañ ay nit ñu taxaw ni dañu bëgg a indi beneen nouveau type de sénégalais est-ce que kooku mën nga ko indi ci réew mi te yaroo ko yaru diine ak ah, diine bu mën a doon nag jullit ba na yar yaru l'islam chrétien ba na yar doomam ci diineem kenn ne faaw ñu yar la ba diine nekk ci yow nga am spiritualité mooy tax boo nekkee cim réew nga mën a régler waaye bu ñu demee ba ñeneen i xeeti nit ñu ñu yarul ci diina ñoo ñuy wax ni ñu pour ñu am nouveau type de céréb gele bu baax ni ñun lay mel ñu war nañoo xool est-ce que ñi ñu indil nit ñi ñooy suñuy modèle pour ñu war a doon sénégalais bi ñuy xaatal est-ce que ñii la ñu soxla ci réew kon éducation xale du caaxaan yont yàlla ma jël rek misaal yont yàlla Yuusuf yàlla bi mu bëggee mu yor ay responsabilité dafa fexe ba ñu yare ko ci kër goo xamante ni yar bu jaar yoon lañ ko jàngal ko conscientiser ko def ci moom li ñu war a def moo tax lépp luy tentative boo ñëwee ci kanamam éducation moo ko dul may bu fekk si loolu xam ngeen ni bi mu ci tollee tollu ci diggu ndawam taaru mel ni mu war a mel ay jigéen taxaw nañ ba tàyyi pour gàllankoor ko ci yoon yu mu war a jëm waaye dafa ni du ko def dem na sax ba am expression bu garaw ba mu wax dama wax ni nit su jaaxlee ñaare day wax loo xam ne bëgg ko sax waaye boo ñaanee yàlla loo bëggul tombeeg yàlla nangul la loola da ngay am problème gis nga bañ ko harcelé jigéen ñi harcelé ko ba amatul pexe dafa ni rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin yàlla man dem kaso moom a gënal wuy si jigéen ñi ci li ñu may woo boo ma aarul nag te dimbali ma dinaa leen fekk si ci li ñu bëgg te boobaa dama lay tooñ yàlla ni ko comme yaa wax kaso demal kaso gis nga moom éducation bi ne ci moom moo ko tax mu ne moom dem kaso moo ko gën a fekk si jigéen ñi fii nga xool léegi dañuy dem ci suñu prison yi maison d'arrêt et correction yi ñaata nit nga fay fekk lan moo leen fa yóbbu dañ doon violé xale bu ndaw ak pédophile moo leen fa téye loolu rek kon ñooñu amuñu conscience kenn conscientisé wu leen même bu ñu leen jàngaloon ba ñu yéeyi kayit amul njariñ alquran day wax ni mathalu alladina xummilu tawrata summa lam yaxmiluha ka mathali alximaar yaxmilu asfaran elage alsan yàlla nee na jàng te jëfewoo li nga jàng da nga mel ni mbaam ñu baal ma ci expression bi bu ñu sëf ay téere yàlla ko wax nee na loolu ngay duróom sëf la la ay téere mais benn njariñ du la ko amal c'est parce que kenn conscientisé wu la te xale yi loolu la ñuy xaar ci ñoom léegi nag pour ñu fexe ba xale yi mel ni ñu war a mel éducation bi ñu war a def ci ñoom dafa bari fu ñu war a doore pour préparer xale xale dafa am nu ñu koy waajale pour ëllëg mu doon xale bu baax c'est nu nga koy utalee ndey nu nga koy utalee bàyyi yooyu yëpp dafay feeñ day contribuer ëllëg ci éducation xale ngay dégg ci waxin wolof ñun ni ñu koy waxee kilifa gi da ngay dégg ñu naan soo bëggee am doom ju baax da nga koy utal. du ndey ju baax la ñuy wax. mais est ce que bu baaxee te bàyyi baaxul est ce que doom dina baax parce que dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd. faw ni nay di baaxee ñu naan boo bëggee doom ju baax da nga koy utal ndey ju baax dañu war a wax ni boo bëggee doom ju baax da nga koy utal baay bu baax tukkuloo day wax ni nen ne mojji ba ba mojji. bi ngeen mu ne tax nay bu baaxee. baay baax mën nañu yaakaar ni doom ji dina baax ku loolu lu am solo la te fondement la ci yaru xale ëllëg nga fex ba fexe ba utal ko yaay ak bay bu responsable kenn ku ci nek ci ñuko sék kenn bañ cee xeeb moroomam ndax ëllëg la ñuy war a am yonent bi daf do daan wax nan ikhtaru li nutfikum fa innal al araqa dassaas seen sperme xol leen fi ngeen koy def ndax sidit day rogalat ci doomu adama loolu dafa jar a bàyyi xel doom jooju maanaam soxna sa étape ba muy jaar yëpp ci grossesse am ba xëy am doom bu xësee ba am doom jooju bokk na ci li am solo te ñu koy fàttee même xale bi da nga war a fexe ba mu doon ko responsable ci bu gënee àdduna même tur ba nga koy tuddee sax na ko seet na nga xool bu baax nooy tuddee sa doom parce que day forge day day day bokk ci personnalité xale bi xale bi.

xasan mooy mag xuseynu mooy tasxiiru xasan mooy asan mu ndaw mooy xuseynu ni ko parce que dama bëgg ëllëg ñu doon ñu baax te tur day jeexital ci doomu aadama tur dañ ko xeeb mais dafa mën a jeexital ci doomu aadama bari na koo xam ni yor na comportement da ngay dégg ñu ne ah ñoo ko def ki ñu ko tuddee la ngay dégg sax ñu naan turandoo moom nit day jël ci turandoom ba ci juróom-ñaari jikko ñu ngi ciy nettali ñaari anecdote benn bi dafa am benn yahud muy juif boo xam ne dafa amoon ñaari mbaamam comme moom dafa bëggul woon yeneen bi ak saxaaba yi mu fexe ba ni mbaam mi mu ngi ko tuddee Abu Bakr beneen bi ci des mu ngi ko tuddee Omar ibnul Xattaab ndax bon mais bi Omar bi mu déggee loolu comme moom moom moom moom wax moom da koy teel a gaawal mu jeex mu ni moom day rey waa ji yeneen bi ni ko jaru ko ndax mbaam mbaam la tudd Abu Bakr Abu Bakr la tudd Omar Omar la tudd mbaam mbaam la tudd yéen du ngeen mbaam ya mbaam ya du ñu Aboubacar du ñu Omar waaye waa ñu boole wu ci wax moom day bàyyi ba ñu toog yonent bi saxaabaam yooyu toog muy jël yat bi di dóor ci mbaam yi naan Aboubacar accal Omar accal ñu bàyyi ñu dem ba jëmmi jamono gisatuñu waa ji nekkte loxo bi am na triple fracture du ma wax sax double fracture bi ñu laajee ñu ni dafa am benn ci mbaam yi boo xam ne moo ko wàññeetu ba loxo bi damm ñu wax ko yonent bi mu ni maa ngi wat ni mbaam moom mu tuddee woon Omar moo ko def noonu ndax Aboubacar dafa lele. effectivement ba ñu vérifier loolu la ñu fekk kon loolu dafa jar a bàyyi xel beneen benn xale bi bu juddoo ba toll ci war a mën a jàng la ci moom mu jàng waaye devoir la ci waajuram mu jàngal ko gis nga ku defee da ngay nii say doom am sa njaboot nu mu la neexee dund lu la neex. ba xëy dee dem àjjana sa njaboot dem safara ndax yaroo leen yar bu baax nax nga sa bopp na leer suñu bopp ñun ñëpp yonent bi sallallahu alayhi nee na yowmal qiyam dinañ fa taxawal benn nit koo xam ni day ñëw koor bu bat sëkk la indi julli gu doy asaka joxe na ko ni ko war a joxe dem na Makka yóbbu na ay nit Makka def na lu baax a baax ba tey def na ko ci ay teranga ak def ngir yàlla ba ñu xool ay point mu mat ñu ni ko yow ces points yi dafa sax ëpp da ngay dem àjjana doom yi jóg di yàlla diw mi de yaa koy bàyyi mu dem waaye boo ko bàyyee ñu dem ñu xam ni yow démocratie amul ci yow ndax moom baayam nga koo yaroon yar bu baax ba mu baax muy suñu baay yaruñu yar bu baax toppatoowul suñu njàng toppatoowul suñu dund toppatoowul lu ñu lekk toppatoowul lu ñu naan moom daal boppam a ko ñoroon ba tax ñu nit mujj a wàcc yoon nekk ci lu ñu neex nekk googu ñu nekk ci lu ñu neex moo ñu sànq léegi soo ko dugalee àjjana ñun nga dugal ni safara tooñ nga ñu yàlla woo ko ne ko ndax lii sa doom yi wax dëgg la mu ne ay la yéwén dëgg la ñuy jël ci ay tiyaabaam di jox ay doomam du matal ay doomam du ñu matal yàlla boole leen ñoom ñëpp dugal safara wala nañ ci yàlla ku defee ne xale ba non ba neex la am doom neex na mais responsabilité la saa yu la yàlla joxe doom xamal ni sa benn tànk mu ngi biir àjjana beneen tànk ba mu ngi biir safara soo góor góorgóorluwul nag ba waroon a dem àjjana mooy fekk si bi war a dem safara nga dugg safara wala bi waroon nga góorgóorlu bi waroon a dem safara ñëw fekk bii nga dem àjjana moo tax mag mësuñoo caaxaane seen doom yi bu ñu koy joxe gis nga mam Cheikhul Khadim Serigne Touba dafa jël ñaar ci njabootam kenn ki ñu koy wax Serigne Fallou Mbacke ak magam Serigne Moustapha Mbacke mu jox leen Serigne Dame Abdourahmane loolu ni ko mu jàngal leen mais bi mu leen ko joxee dafa ni ko ñii ma la jox bëgg naa ñett yi bu leen dal bu ñu buun bu ñu saalañ te bu ñu jagam ci bu ñu saalañ te bu ñu jagam buun mooy gëj lekk ndawal ni ko bu ñu sous alimenté wu kuy joxe taalibi naan doo bu mu sous alimenté wu yaa ngi bàyyi xel bu baax bokk la kii ñëw di jox talib ba pare nan la ki da ay yaxam la la laaj te fa la fa yene fek bu soobe yàlla bala yag ay yaxam dina ko fek waxu jël sa dom joxe jemo ci dal don parent bu irresponsable joxe sa dom do fek ci sa dom ci dal ba pare nan ay yaxam la la laaj bu la serigne ba déggalee legi ay yaxam laaj la moom it nag moom bi ñak la deggel warul tax muy jël xale bi diko genn ci mbedd mi de gauche à droite su ko ta yor nako delo parent nit da ngay responsable parce que boo ko delloowul wax yu mel ni yii fi Seyda doon wax ak ak seen i mooy am yenn saa bu neex ci xol mais day doon ay yoo xam ne ay dëgg lay doon parfois. Mm-hmm. mais heureusement ba am na ñoo xam ni exception la ñu. waaw te sax nag dama bëgg ñu xam ni exception bi mooy ñu bon ni waaye daara yi baax ci réew mi moo ëpp daara yi bon. barke yonent bi. tubaab day wax ni l' exception confirme la yi fi baax ñoo ëpp daara yi fi bon. mais am na daal yoo xamante ni gàcce lañu ci diine am na yoo xam ni gàcce lañu ci diine ma ni kon mu ni ko bu ñu buur mooy xale yi ma la jox fexee ba bu ñu sous-alimenté wu maanaam bu ñu toog ñu naan ñoom yàgg na ba ñu gëjee lekk ndawal ak léegi kenn xamul kañ leen gëjee lekk yàpp mun ko buñ ko def tegal ko ci ni ko bu ñu saalañ te bu ñu jagam loolu mooy xale yi gis yenn saa yi nga romb benn xale taalibi xob ba dafay tilima tilima tilim ba dër nga xool yaram bi yaram bi tilima tilim ba teg ay heure ñu naan la alxuraan la bëgg ku bëgg a mën alxuraan da ngay sonn loolu yàlla wax ko yàlla waxul loolu amul benn téere ci àdduna bu borom ni laa yamassuhu illa almutahharuna nee na téere bii di alquran chérif borom bi nee na ku sette laab moo koy laal mi kon xale bu setul nan la mën yoré alcorane di ci am ndam. tubaab day wax ni l'esprit saint dans un corps saint loolu da koy waxe waaye le corps saint dans un environnement sain dafa am solo kon xale bi pour mu mën jang jang bu baax bu normal faw yaram wi doon yaram bu set set loolu dafa bokk ci lu koy dimbali ci defal ko xel mu ubbeeku pour mu mën a jàng waaye xale boo xamante ni dafa tilima tilim ba c'est pas possible ñu jox ko alxuraan naan pour alxuraan di dugg faaw ñu toj bopp beeg faaw ñu xar bëñ bi pour lan loolu baaxul loolu dafay jur ci xale muy révolté wu ëllëg te doomu daara xale ndongo daara bu révolté baaxul ci réew ndongo daara bu révolté danger la bu garaaw a garaaw boo xamante ni day am te nit ñi dañ koy kon nga fexe bu baax ba bay xel loolu gis nga Serigne Touba ba mu waxee loolu ba pare dafa jël moyens yi nga xamante ni moom la sëñ Dame Abdourahmane loo soxla pour xale yi mën a dund dund gu baax lekk lek gu baax tëdd fu baax pour mën a def résultat yu baax effectivement. effectivement Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh ba mu jëlee njaboot ga yóbbu ko yóbbu leen Fass Touré. ci sëriñ Abdoul Aziz ak ay magam ngir ñu def ci ñoom alquran ba ñu demee Fass nu mu doon def moom sëriñ sëriñ Abdoul boole si dem ak njaboot gu bari yóbbu camion lay gaare camion luy ceeb luy dëwlin luy savon lépp lu mën a setal daara ba pare xale yi nekk ci condition bu wàcce ko fa ba pare jël une somme d'argent bu am solo ñu dañ ko def ci daara ji moo tax ñaata xale ca xalem yooyu ñoo mokkal alquran ñoo fi génn mais bu fekkoon ne daf leen a yóbbu rek ni man kat ab sëriñ laa rek bu soobee yàlla naa féete woo ñaan gi jël lu mat ñeent fukki xale joxe ba pare joxe woo añ joxe woo reer joxe woo ndékki di féete woo ñaan loolu rek bu régler situation bi loolu du ko régler kon def effort ci xale yi dafa baax dafa baax pour sonne njaboot gi pour li yàq li war a nekk ci ñoom nekk ci ñoom dafa baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni guerre bi njëkk ci lislaam mooy

mu laaj Omar Omar ni ko kenn bu leen baal dañ leen di rey parce que bu ñu moom xam nga Omar moom bokk ci moom. moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax ni ku faatu boo duggee sa bàmmeel malaaka yi dina ni la ban rabbuka ba mu des Omar moom bu boo duggee ci bàmmeel bu malaaka yi ñëwee au lieu que ñu ko man rabbuka moom moo naan leen man rabbukuma yéen kuy seen borom moom mosul caaxaan noonu la gëmoon loolu la daan doxal. mais keroog yonent bi dafa mujj a fekk si Aboubacar ci xalaatam léegi mu ni képp koo xam ne bokk na ci ñi te am xaalis nañu nañ ko laaj une somme d'argent mu joxe ko ñu libéré ko mais ñi nga xam ne amuñu moyen amuñu xaalis xam nga lu leen def dafa di kon dañ leen di jox fukki doomi jullit ngeen jàngal leen ba ñu mën a liir mën a bind loolu moo leen di libéré yéen. gis nga ni mu fonke woon xam-xam nee na dañ jox fukki doomi jullit. nga jàngal ni yar leen ba ñu mën a liir mën a bind soo ko defee loolu moo lay libéré kon dafa fonkoon xam-xam daf ko fonkoon mi li mu koy fonk fonk éducation yi daf ci bàyyiwul xel bu baax a baax a baax da doon sonne éducation njaboot ji Cheikh Alhaj Malick daan na wax ni su ma yëgoon li ma sonne ci xam-xam ma sonne ko ci yar ak i teggin ñaata borom bi xam-xam ñoo nekk fii ci réew

ba pare jàngal ko ba mu doon borom xam-xam bu xeriñ dafa ñëw laaj ministère lu mu wax buur bi ijalni ala xadaini l ard inni xafidun alimun dama bëgg ñu jox ma le ministère de l' économie et des finances lu tax mu ni wóor na ma ne jub naa du ma sàcc alalu réew mi loolu ku ñuy yarul doo ko dooli mel te xam naa économie bu baax waaw am naa xam-xam bi xam naa ko bu baax te jub naa xam nga ni dina xam wàllu économie bu baax waaye ci juba dina koy jëmale. am na ñoo xam ne ñetti mbir mooy seen mbir nee nañ dinañ fexe ba kenn bu leen nax benn ñaareel bi ku ñu mën a nax dinañ la nax ñetteel bi ku ñu nax doo xam ne nax nañ la. ay day day xam nga loolu baaxul ko xam moom fas moom mënoo wax a ba nax ko mais moom moom lu mu mën a def ba nax la dina la ko def te li garaaw mooy bu la naxee doo yëg ni nax na la kooku conscience nekkul ci moom. nga din kooku aay na keroog loolu wax li moom ministère bi muy laaj mooy le ministère de l' économie et des finances ndax critères yi ñu koy yore am na ko am na xam-xam bi te jub na ba du laal lu mu moom foo mën a laq alal ju lewul moo demee yàlla dina ko lijjanti ak toujours bu réew mi ay audit am fi ñu topp ay nit tëj ci di jàppal bàyyi dama leen di wax ne lii mooy moindre mal bi mooy tëj bi ak tëj bi li garaaw mooy ni ñu lay tuumaal bu dee yaa ko def te muy dëgg boo demee ci sa karamu borom dina la alal ji nga dajale woon amassé des fortune fortune bi nga amoon foo ko jëlee ak foo ko dugal. dina la ko laaj kon ñu tëj la ak ñu tëj la du problème bi mooy fexe ba li nga yor mu nga xam fi nga ko jëlee xam fi nga koy jëmee dafa am solo ci jullit loolu nag ko amul éducation doo ko mën. ku ñu yow préparé la waajal la ni ñu la waajale doo man loolu doo sax jéem doo ko mën a gérer parce que du nekk ci yow te arab day wax ni faaqidu shay'in laa yu'tihi nit mënu la joxe lu mu amul bukki dañ ko doon laaj ku gën a nay ci àdduna mu indi benn waay bi kii moo fi gën a nay ñun ko bukki ban preuve nga am ci ni moo fi gën a nay mu ne laaj leen ko ndax dina leen jox ñu laaj ko waa ji ni man yoruma mu ne wàlla c'est moom mi joxewul moo ne fekk du loolu li ci jublu mooy nit mënu a joxe lu mu amul kon loolu faw ñu xam ko beneen benn gis nga xale yii ëllëg dañuy xaar ci ñoom ñu doon ay responsable yor ay responsabilité kon faw ñu sonn ci seen éducation benn mag nee na ma enseignement et éducation li leen wutale mooy enseignement xale da koy jàngal ngir mu mën a jàng seconde xale dañ koy jàngal ngir mu man a jàng waaye bu dee éducation jarul nga koy wax bëgg mu mel ni El Hadj Amadou Seck El Hadj Amadou Seck bëgg na xale yi muy yar moo ko soxna Anta ñu mel ni ñoom jarul ñu naan leen nii laa ñuy def ak nii la ñuy mel ñoom ci seen éducation ak seen comportement si la xale yi di xool rek mel noonu noonu rek la ñuy def jarul coow jarul wax dañu leen di xool ñoom ñoo doon image maanaam xale yi ñoom la ñuy xool

bu fekkente ne dañu fiy nekk di am lu ñuy maslaha ak lu ñuy lu ñuy seet naan boo fi defee li ñun da ngay xeex di nekk da ngay lii loolu li muy jur mooy ñu maas ñun ñun ñu bon ñu te bonuñu wax mon frère loolu lay jur ñu ñuy loo te bonuñu kon loolu ñoo ko war a nangu di mu amee fulla ba réglementé liy xew ci réew mi yëpp noonu la war a def daara yi mu tegu ci yoon ak lépp lu aju système éducatif bi lépp la war a vérifier ñu xool nuñ koy tege ci yoon. dañ ko war a vérifier xool ko teg ko ci yoon dañ fa war a jaadu ñuy xool daara yi ak lan moo fay ne ak lu fay dugg ak lu fay génn. sama benn nooy dafa wax lu yéeme nee dafa nekkoon ci benn dëkk moom pénitentiaire am benn prisonnier boo xamante ni ba ba muy dugg ca faw fa la ko fa dugaloon mooy moom kat da doon ba ñu jàpp ko tëj ca dëkk ba mu ne bu sori nee na bis muy dox rek beneen dëkk. Cees sax la wax la ñëw ba ci benn taatu garab rek gis waa ji toog fa yor ay taalibe ni day jàngale. non yow eh waay sax. nee na mu ñëw fi daal nee waaye ba mu demee bu mu ñëwaatee fii kaatu ko fa dafa seey dem yoon kon xam ni dafay secteur boo xamante ni dañ ko bàyyi mu ba mu ëpp ku jóg rek yor sa benn roq ni fii laay def loolu ba kañ beneen benn am ñoo xam ni. te dañ koo war di leeral bari na ñu ñuy tudde ay taalibe du ñu taalibe ay nit a ngi di jóge ci dëkk exode rural bi ni mu daan amee ba léegi day am ngay dem kenn ko la jox la doomam ni la yóbbaa leel soo demee na yelwaan boo ñëwee ñu seddoo nga am ci ma am ci loolu da ngay exploité xale bi loolu état bi war na ko di xam war na ko di xam parce que éducation lu caaxaan damay wax ni ñaari doom mënul am ci Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey mënul ci benn réew réew ñëpp a ca war a tolloo ñëpp a ca war a yem droit à éducation et à l' enseignement ñëpp a ko am kenn ku ne ak li mu bëgg kenn ku ne ak li mu bëggee éducation doomam ak enseignement li mu bëgg mu jàng ko fi mu toll amatul problème xale bi mën na ne ci réew mi jàng alquran jàng tubaab li mu ci war a jàng ba ëllëg mu doon modèle de citoyen bu baax boo xam ne responsabilité yi ñu ko jox ci réew mi dina ko mën a assumer. Mm-hmm. ndax ragal yàlla mu ngi ci moom waaye xam-xam bu doxal réew mu ngi ci moom moo tax am nga beneen système d' éducation bu gaa yi xewal mooy le programme trilinguisme et formation professionnelle dans les daara da nga daan gis xale bu nekk ci daara ñu ne xale bi def na ñaar fukki at ci daara bu yeggee ba yegg moo ñu ne mokkal na alxuraan ñenn ñi wàcc sax duñ ko def ñenn ñi xaajal duñ ko def mais ku am huit wala ko am 6 ans yóbbu la ci daara nga def fa 16 xanaa da ngay doon 22 ans bëgg génne à l'âge de 22 ans ñu ne na soo ko commencé jàngi métier ko kañ lay fondé yi kañ lay taxawal kër ko kañ lay mën a jëriñ société ba mu ne mu kon war nañu fexe ba lépp lu nit ñi soxla ci daara mu am xale bi mën na ne ci daara ji di jàng alquranam di def ci moom une bonne éducation mu jàng français mag li mu war a jàng yëpp.

mën a commencé tu ubbi buntu jàmbur tëj buntu jàmbur ni ko fa ñu commencé doon di sàcc ak ci vagabond ak ci bandi ñu leen di bàyyi ci réew loolu nag dafa laaj taxawaay moo tax ñu ngi encouragé lii kër gi def bu baax a baax a baax c'est important di fexe bay tënk xale yi ci diine dafa am solo waaye surtout nag yee leen ba ñu nite yee leen ba ñu nite dafa am solo lool lool waaye ñu ngi leen di ñaanit ngir ñu gëstuwaale bu baax fi xale yi di jóge pour jéem a xam suuf su problème ba fa nekk lan la loolu am solo xale yi fa ñu jógee lan moo tax ñu jóge fa il faut que ñu ciy bàyyi xel aussi il faut que ñu bàyyi xel mooy li tafsir doon wax léegi dañ ko topp nañu xool xale bi fa mu nekkoon nan la fa nekkee yan condition lañ ko fa tegoon ak lan moo waral mu fay génn ak lan mooy waral xale yi di daw ak yu bari yu xale yi di def yooyu yëpp il faut ñu bàyyi ci xel bu baax bu ñu bëggee am une bonne éducation pour suñuy xale. mu tax waxkat ba daan na wax ni soo bëggee boo ma laajee sa ëllëgu réew nu muy mel dama naan la say xale nu ñuy mel nu ñu mel. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndam yi mu am yépp dara may ko ko lu ay xale mu tax benn ci yéefari dafa ni kii diineem jii ma gis kenn mënul tee mu dem ñun ko lu tax mu ne parce que ñi ko topp mooy ay xale ak jigéen. te xale yi ñooy màgg jigéen ñi ñooy ami njaboot kon ku ñu wër da dem moo tax ñoo ko encadré même suñu magi réew yi ngeen fii dégg yëpp mag moo fi dégg ba muy ànd ak mag bi mu doon liggéeyal ay xale la woon ñoom ñëpp. tuddal maam Abdoulaye Niass. tuddal maam moo fi dégg liggéey ba mu liggéey ba mu koy liggéey ndaw la woon waaye ndaw ñu préparé waajal ko la waaye ña àndoon moom ñëpp ay ndaw la ñu woon moo tax ñu man a yëg. loolu it la yonente bi amoon ak sahaba ay ndaw ñoo ko wóoroon jàppale ko soutenir ko teyel ko limu yor motax mu meuna yegg fa mu yegg mom sallallahu alayhi wasallam dara may ko ko loolu loolu amoon ñu am détermination am taxaway xam fi ñu jëm jàppale ko ci motax mu meuna réussir mission motax da la wax ni xaalafani shabab xiina xaalafani ni alkibar aw kama qaal nee na xale yi ñoo ma tafu jege ma bëgg ma jàppale ma bi ma mag ñi weddee loolu la wax nee na xale yi ñoo ko soutenir ñoo ko jàppale ñoo ko wéeru ci ñoom ñoo def sax ay sacrifice sacrifice de temps sacrifice de bien sacrifice de sang pour yegg fi yegg yàlla ngi ciy tagg benn xale foofu lay jeexale naan min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir waaye wa maa baddalu tabdila yàlla nee na am na ci ñoo xam ne ci xale yi la ñu diggante woon ak yonent bi lépp la ñu def xare ba daanu ci toolu xare am na ku ñuy wax Mus'ab ibn Umayr xale la boo xam ne bi muy dugg ci lislaam yaayam moo ëppoon alal Makka tere ko lislaam mu lànk di ko man lii daf maa doy te dama ciy dugg coow bari.

wallaahi boo demee mag ba diina ndeysaan alsaan nag mooy xoolaat bëgg a dem rek ren déedéet baal ba déwén affaire bi ah waaw demoon nga daal ah man El Hadj Amadou léegi wallaay wallaay loolu rafet na ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yàlla yàlla fay la ku waaw yombul nag yombul waaw ku bëggul a dem amul mais loolu boo demee Madina boo demee fi ñuy wax Uhud foofa ngay fekk mu tëdd foofa ngay fekki ku ñuy wax Hanzalatu bnu Abi Amir xale la boo xam ne bis bi mu amee soxna bis bi ñu bis bi mu njëkk a fanaane ak soxnaam nekk ci ci ci lune de mielam wala nuit de noces am bis bi mu fa njëkk a fanaane dafa xëy ci fajar gi ñu woote xare ni xare Uhud taxaw na mu jóg jotu la sax sangu sangu set daw ca xare ba nekk ca xare ba ñu rey ko fa xoolal pas-pas boobu kooku ku ñu yarul doo ko mën ñun waxuma la sax xare mais boo amee séet sax bu ñu noddee ci jàkk bi si koñ bi nga mer parce que ñu koñ boo xam ne kenn mënu fee dégg bàyyi dañuy yuux ku dégg ba jëkk yow sa benn séet dina tax ñu nodd du na tee ñu julli mais moom dafa ànd ak moom gëm ko ànd ak yonent bi keroog bi ñu ko reyee ci xare boobu saxaaba yi dañu gis lu garaaw ndax ku faatu ci xare mu ngi mel ni ku faatu Makka fekk nga dem ku armal kenn du la defal dara dañ lay jël jullee suul nga dem àjjana waaye keroog saxaaba yi dañu gis ne Hanzalatu bnu Abi Amir yaram wi dafa tooy xepp ak ndox ñu laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ko kii ndox mii fu mu jógee mu ne kii mooy xasiilul malaayika yàlla moo ne malaaka yi nañu jëlee ndox ca kaw indi ko sang ko ndax ni mu waroon a sangu sangu set te sanguwu ko ndax bañ xare bi raw ko te bëggul mu dem ànd ak sobe te ndaw la ndaw la musaab bi noonu la def keroog ndeysaan bi mu faatoo yonent bi tiim ko di ko jullee rangoo ñoom dafa dal ci dënnam mu ne kii nga xam ne yaayam moo ëpp alal màkk lu mu bëggoon mu defal ko ko waaye gis nga diineem jaral ko mu faatu bi mu faatoo benn mbubb si mu dese suñu ko sàngee ci kaw tànk yi day feeñ ñu def ci ay ñax wala ñu sàngee ci kaw dënn bi di feeñ ñu def ci ay ñax waaye yàlla jaral ko Saad ibn Abi Waqaas leneen jeune la boo xam ne bi mu duggee ci lislaamam moom it yaay ji dafa ni ko man damay def grève de faim soo génnul ci diine Muhammad ji damay xiif di mar ba dee ñu xam ni yaa ma rey te dafa amoon affection maternelle bu fort waaye xam nga lu wax yaay ji bi mu neexalee neexal yaay ji teg leen une journée lekkul naanul mun ko yoon ni ma la gisee boo du lekk doo naan da ngay dee waaye dama bëgg nga yóbbaale ni boo amoon téeméeri bakkan bakkan bu dee di xiif ba dee sa téeméeri bakkan dee moo ma gënal weewu yonent bi metti sooy lekk lekkal boo lekkul nga seen situation yaay ji xam ne jaaxaan faaxe mu laaj boolam lekk naan ko bàyyi naa la ak yàlla yàlla la sama àq dal kon éducation dafa am solo loolu lépp dañ koy waajale xale kon ñu ngi ñaan yàlla li ngeen bëgg ci njaboot gi yàlla na ci yàlla li ngeen bëgg ci njaboot gi te muy defar ak jagal ba xale yi mën a bokkaat ci société bi ndax xale boo xamante ni ñu ngi ko yóbbu ci daal mu xëy rek dem xëy na sax waajur sax xamuñu fu mu dem xamuñu ci lu mu ne ngir ko

suñu maam ju baax jàlla ji Ahmad Njëgën daf daan wax ni diine nag wu loof la mu ne nag wu loof nag benn nit du ko yëkkati ñaar du ko yëkkati Ahmad Bekaay nee na mbooloo mooy jàpp ku ne day yëkkati mu jóg kon kenn ku ne dafa war a jàpp ci lii pour mu jag pour mu baax waaye kenn jiituwul état nag ci mu ñëw xool lii ñuy def fii jàpp ko soutenir ko ba liggéey bi man a dox ba lañ cee séntu ñu def ko yàlla yàlla defal dégg topp ngeen baal ma nag lu ma jógee sànq ci conférence ak coono moo feeñ ci baat bi rek asalaamaaleykum wa rahmatulah li tax mooy xale té te dafa am solo affaire u ñun fi moy suñu guddi moy suñu bëccëg mission la nag y a pas de hasard bi ma nekkee France xalaatu woon benn bés ne damay dellu si fii voilà pour ubbi centre pour lan parce que bi may jógee Sénégal yii am woon bi ma fiy jógee en 1972

saaku sima bu ma togon ci digg bi ba tay ni mako fatte tok di waxtaan ñuy seet fofu naka lañ koy defaree ba mu jekk ba mu rafet pour xalé yi ci mbedd mi mën fa ñew di fa dal bobu du won sax projet yo xam vraiment tegu won na si yoon. Mhm. dama ne won rek dama ubi kër en tant que sen yaay tante wala mam di dimbali xalé yi ñu gor gor xalé yi ñoo daan ñëw ñoo daan togg sax taxay bi ñëwee maire yow mën nga toog may leen li ma mën nag lii mën naa leen toggal plat tubaab wala genre ñu ne ma waa ñu war rek ñun dinañu góorgóorlu jënd defar suñu soom bi wala defar lu mu kii daal voilà pour xale yi rek xam ne am na kër bu ñu ubbi pour dimbali leen. lu xëy nag ba kër gi dem ba toxu ba yàlla nag moo ci jàpp Chérif la première fois ñu waxtaan maa yow ci affaire xale yi.

te yàlla daf la ci xëy dimbali xale yoo xam ne sax dañuy ñëw ma foog ne ñi dootuñu feeñ def ay atti atti at ñu xëy ba seen papa ak seen yaay ñëw fii jël si leen wala ñun ñu dugal leen si oto yóbbu leen ñu ñibbi donc ci laa gëm ne lii mission la boo xam ne suñu borom bi moo ñu ko jox daf ñu ko dénk nii rek ñun ñuy avancé moom moo ñu defal lépp rendez-vous la yàlla moo ñuy jox yoon wi mooy xëy nag tey kii na jot na am na xale bu fi sept ans mais bi ñu toogee ba ne kii de dootul mais dañu xëy Papa. jël si sept ans fi empire te début ba la ba ñuy commencé donc loolu la daal di gërëm vraiment sama famille équipe bu empire des enfants parce que nag liggéey bi lu ñu ci góorgóorlu équipe nous sommes ñu ngi fi ku ci nekk suba da ngay dox sa Empire en tout cas je remercie tout le monde remercier tous mes amis qui sont là remercier na famille Amadou parce que Amadou mais dañ lay nga dem di remercier madame soxna yi remercier ce frère yi nga tous les jours depuis le début Amadou mu Empire lan te nee naa leen fu ci àdduna bi bu tukkee sax daf may woo di ma laaj il est là toute l'année ah lii boucle bi la quoi c'est-à-dire tey la ñuy ñëw rek pour toog mu invité ñëpp ñu waxtaan mu kontaan mais Amadou il est avec nous toute l'année mm. nit rek nit ku lay woo ne la waaw fu kii léeg-léeg sax mu tàyyi woote dañuy jékki-jékki rek gis ay xéewal yu ñëw ñu ne Amadou Seck di ñu woo di xalaat ñu daal vraiment et puis dafa bëgg xale yi xam nga loolu aussi daf leen bëgg ni mu bëggee njabootam gi maa ngi gis sax c'est c'est euh, c'est Mouhamed Seen Naka ak euh, ah, ak Tafa tu es là ah Moustapha Tafa wa doomu Amadou bi Moustapha euh, tu sais que Moustapha on va refaire le projet avec école américaine bi cette année grâce à toi daaw il y a deux ans tu avais initié organisé à l'école américaine pour qu'on bénéficie d'une soirée de gala. Ils ont maintenu le projet. Donc, il faut Voilà, c'est lui qui a initié ce projet. Voilà, l'école américaine, ils vont reconduire le projet que tu avais mis en place. En tout cas, continuel Top, sa papa parce que sa papa lu baax rek lay def Amadou maa ngi remercier bu baax je non yow moom xam nga rek on est ensemble comme <laughs> <laughs> ok voilà vrai de vrai quand je vais vous donner la parole voilà nga remercie sa ay nit aussi et euh, on n'oublie pas Babacar Ngom hein. mm. ah yaa ciy wax voilà merci à toute l'équipe de l'Empire des enfants mon frère Gaye, Guèye def nga ma annonce léegi ma ci kaw

te Chérif nekk suñu suñu nit nekk suñu xarit di xaritu Djibi Samb nag. waxoon na dina ñëw tey. waaw alors donc may gërëm déjà mbooloo mi ñi ñëw parce que am na ñu nga xam ni sax démb ci guddi laa leen yónnee texto ma gis ni tey ñëw nañu loolu ma ci kontaan di gërëm aussi euh, samay collaborateurs. parce que moi, Yoro et tout le monde parce que nous, ça fait neuf ans je pense que bii 9e année parce que depuis ci nous avons je regardais un peu la première édition c'était en 2011 on l'a fait là-bas à Malixi, à Idrissa Diop on le faisait en famille mais c'est toujours en famille mais de nous élargir famille parce que dama nous nous ak collaborateurs nous avons bureau ñu ñëw nekk ak ah, Anta toog ak xale yi waxtaan xool lan la war a def pour affaire bi gën a jëm kanam alors donc léegi ñu yootal ko yàlla dimbali ñu Malick Sy fi ñu nekkoon dañ fa daan loué ba ki moom Malick Sy ni ñu daal heure bi jot na da ngeen war a dem léegi yàlla dimbali ñu ba ñeneen ak ñeneen ay nit am tiir ñi ci jàpp dañu bare peut-être tey man ma jàpp ci fànn bu ndaw rek yàlla dimbali ñu ñu am kër gi nga xam ni ça fait plus de 1000 mètres defar ko daf fi jàkka pour xale yi daf fi ay néeg yu baax yu mel ni suñu kër yi fi ñu dëkk pour que xale yi nekk dans le bonnes condition tamit ñuy lekk lekk bu baax. parce que euh, oustaz wax na ko imaam wax na ko léegi il faut que xale yi di lekk bu baax. pour mhm. mën a jàng te tamit jàng métier. je pense que fànn boobu tamit ma ci góorgóorlu. di jàppale am parce que weer wu nekk def naa ak samay collaborateur am na dotation vivre bu nga xam ne dañ koy jox ant naa gàll ci ba cuisine bi sax bu ngeen duggee ci biir dañ ci bind cuisine Amadou <laughs> donc c'est grand privilège donc euh, ñu jàpp ci fànn yu bare tey am biir ba ki démb laa fi ñëw pour xool affaire yi naka lay demee fekk fi xale yu bare ñu yuuxu di yéeg wàcc mët nañu ay 40 50 ma ni Anta vraiment di boko ko nga xamni xalé xale yi sont dans leur milieu ñu ngi fi di fo ñi di jouer bari ñi di yéeg et cetera té may may may tenir ci lu nga xamni ma maa ngi koy def depuis des années moy sama doom je tiens à ce que su may ñëw en biir ñoom tamit ñu yow parce que euh, tu te rappelles bi ñu nekkee Mohamed était beaucoup plus jeune première fois mu ñeu le lendemain est devenu pour moi une ko alors donc euh, c'est important ça permet quand même que au-delà même de la situation sociale rang social des xale il faut qu'il modèle aussi pour mener ma cette à je pense que man le lañ et que souvent il n'y a pas d'acquis mon père ne m'a pas laissé des immeubles mais il m'a laissé l'éducation et donc je ferai de même Peut-être que je vais créer des entreprises, mais il faut que vous soyez capable de perpétuer, de continuer l'idée. donc may gërëm vraiment mes collaborateurs ñu nga xam ni ñu ngi fi may gërëm samay xarit fi nekk di gërëm Anta parce que Anta on est fusionnel liggéey bi ñu koy def depuis ñeneen ak ñeneen jàpp ci te on voit de l'amélioration amélioration man je suis content mu ñëwee Empire gis euh, le cadre est magnifique les jeunes sont dans de très bonnes conditions. Donc, euh, moi, 9 ans on est avec ANSA. c'est un pacte Moi, li mu wax du c'est tous les jours c'est tout le temps il y a des périodes où c'est très difficile pour elle dama koy yónnee dara bien que ne du bëgg sax wax la daf koy jot ni Amadou tey de suñu congélateur yëpp ñu ngi nii woon ibbeeku amul xale yi amuñ sax luñ lekk par hasard kii livrait ji bi kii livré mu ni ma yegsi na bi mu yegsee daal dañuy dañoo donc pour vous dire que euh, ñun on a ak Empire c'est un long compagnonnage Et bu sobee yàlla du du du dellu ginnaaw parce que man dama ci gis vraiment njëriñ parce que dañuy gis xale yu xamni buñu ni fi ils arrivent à s'insérer dans la société mm-hmm. c'est très important Très important. parce que buñu fi jógee fi dinañ fi jàng diine jàng fi métier te ëllëg ñu demal seen bopp donc loolu dafa am solo imam wax na ko léegi formation professionnelle mooy école bi ñuy bi di jàngale monsieur Sow mooy directeur bi mu jàngale xale yi ñu jàng liggéey ci ay mburu ay pâtisserie ba promotion bu génn la balaa ñuy génn sax jël nañ leen am na promotion bu paree euh, récemment mais ñoom ñëpp jël nañ leen ah, alors donc je pense que lolu débouché yu am solo parce que formation académique rek taxul nit réussir les la Suisse l'Allemagne se sont développés dans la formation professionnelle Les xale yi métier les ingénieurs, gis ingénieur euh, technicien BMW moteur rek lay mais donc euh, professionnel professionnel dafa baax ngay mën métier da ngay mën même boo demul un nit mën installer sa donc nous ñun empire suñu empire te tout le temps vraiment di continuer ci liggéey bi ak Anta di gërëm parce que dañ rapidement ñu il faut que nous def confiance. donc euh, ma une leen di gërëm parce que xam ni seen temps mais vous avez tenu à être là te ren am na am na ay xarit yu nga xam ni ils sont dans le patronat dafa yëg affaire bi mooy sama xarit la sama grand la muy Babacar Ngom bu Sédima daf ma woo ni ma Amadou il paraît da def euh, kiw wu empire bi ma ne ko waaw man mu ni ma mais lan laa mun def ma ne ko non Babacar ah baal rek on mu woo ma mu woo doom ji Anta ñu yónnee ñi leen sans poulet léegi mu wo ma ni ma est-ce que 100 yi doy parce que man fuma ma war joxe 300 fuma ma ko joxee 100 baaxul. mu ni ma est-ce que tu veux 300 ou 500 ma ni ko non 100 yi doy alors donc muy luma ma xam ni bon ma koy rafetlu parce que depuis des années ñun ñoo organiser demal suñu bopp tay suma gisé sama benn collègue xarit dugal ci loxoom. Mm-hmm. te bëggoon na ñëw sax parce que ce matin dañu amoon réunion CIS ci ci club des investisseurs bi ñu créé après moi, am rendez-vous bu mais dafa ni ma à partir de cette année damay ñëw toog ak yow toog solo muy m'a, sama xarit yi ci ci fànn yu bare di ku baax alors donc may gërëm ñëpp je vais pas monopoliser trop longtemps pardon. donc di leen sant di leen gërëm di leen wax ni ndog bi leen mu jot am na ay surprise yu gars yi préparé ci ginnaaw pour daal vraiment di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñëpp ñu teewe fi déwén. amiin te ñu defaat encore bu gën a mat parce que déwén mooy dix ans yi. incha allah incha allah empire jëm a jëm kanam. waaw te vraiment kenn bañ a mat ñëpp ñëpp nekk.